Les années, nous avons donc euh, euh, euh, lancement activité sur les photos avec le président ki chef service départemental élevage le maire de Bargny li un événement bi nga jot ah, donc koy en image et en intégralité ci ñetti juin la ci place publique bu les distinctions yi y a ne jagleel nañu ko ñi nga anciens lañu parmi eux yoo a ne ndeysaan voilà donc euh, Mamadou euh, Ndaw un des parrains du Djok Kili di Maguette Seck li nga xam ne di euh, ak ki nga également moo di Daouda Sek, li nga xam ne moom moo di seen ay vraiment c'était la fête du mouton la fête de l'élevage à Bargny la première édition li nga a ne moo qui le lancement du week-end

Euh, donc euh, de ni seen ay passage ci Euh, la grande euh, place publique euh, bombardier donne le sorte que tout ce que nous également le précédent il que nous le grand public donc la découverte et que nous également donc permis d'être en contact avec les sujets ku nekk ñëw wan sa bopp wala wan sa morom lii nga xam ne ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo di éleveur yu baax ñi euh, doon nañu ko wane euh, ci euh, bi lépp donc lancement des activités après gis nga concours yi yu ci mel nii donc yenn xar yu mag yi voilà les gros mâles sont sortis hein, dañ kenn ku nekk ñëw présenter sa bos ñuy espérer que la prochaine édition voilà benn sax bi mujj mooy xar bi ñu tuddee adem foofu la juddoo te moom moo tëj la